Elzo ñu ngi lay nuyu di la wax nga nuyoog internet yi lay seetaan. waaw ngi lay fay bu baax ma Fama di nuyu ñëpp ñu ngi seetaan. ok donc ngay dem euh, ci benn festival boo xamante ni le 24 décembre nga koy defee fële ci Grand Théâtre est-ce que mënoon nga revenir un peu si événement bi. waaw euh, Topla festival 24 décembre euh, Topla festival c'est le fruit d'un événement qui s'appelait le Topla show mu doon def depuis 2015 donc ñu defee ko Sorano lañ ko commencé d'afat ko fa après au ko Canal Olympia et ensuite euh, mu nek ben spectacle bo xamni dafa nek di gëna mag màgg fan si di gëna bëri ñi ñi di ko gëna laaj ba ñu won Canal Sorano ñu won Grand Théâtre ñu won Canal Olympia ñu yóbbu ko Esplanade Grand Théâtre en 2019 euh, ma nekk le premier rappeur bu def spectacle avec plus de 5000 personnes donc en 2020 daaw malheureusement ak corona bi mujjul am donc suis mooy deuxième édition du Top Festival qui est devenu aujourd'hui l'un des plus grands rendez-vous hip-hop d'accord donc euh, inspiration bi euh, comment on a créé comment s'est fait la création. Je bah, suis Sorano la base ah mooy salle bi nga xamante ne bi ma nekkee xale fa laa dem ay concert yi ma vie et commencer ma commencé carrière je me suis dit man que ma joue Sorano xaw ma nu ñuy organiser xaw man daal dama faut que ma jouer pour me confirmer les gars. man artiste là quoi et je def mon nekk ben ben grand grand succès et en toute humilité j'ai même un peu redonné vie à la salle Sorano parce que bi ñu fay jouer 2015 dara amatu fa quoi franchement mais comme que suñu koñ la dañ koy chaque jour on s'est dit que nous ñu de l'art, quoi euh, non le la Topla Show judo mais ah may continuer ma carrière On vient ma commencé ba ça fait six ans et j'ai 6 produits en moyenne chaque année je gagner un album ben EP et chaque fois que album ou EP génnee dañuy dem présenter ko ci salle de concert euh, par le dans le cadre du top là. donc là faut que la noonu la Topla Show judo ah. ok donc euh, festival bi nan lay démé artistes invités comment ça se passe. Ouais, en fait top Topla Show dama doon euh, daanul nekk musique kese hmm. da am toujours ay jour asiko ay peintre ay ñoo xamante ne ils sont dans le stylisme ñu ñëw wane seen liggéey donc loolu moo tax Tobla festival day day day dajale pratique artistique yooyu yëpp quoi c'est vraiment un événement culturel boo xam ne di nga fa gis ay waaw ay danseurs gis fa ay 2015 in amoon na benn chorale par exemple donc noonu euh, loo tax mu dem ba nekk festival quoi là on a beaucoup beaucoup d'invités ñoo xam ne ñi ngi yëngu ci rap bi yëngu ci musique bi ay comédiens ku ci mel ni ay singom maa ngi koy nuyu ñoom ñëpp dañuy di ngeen leen fekk foofu en 2019 il y avait Doudou fait des vidéos il y a toujours eu euh, ça a toujours été un spectacle très, très diversifié. Et d'habitude, euh, comment se fait la sélection man, man avec mon staff, nous euh, on aime bien ce qu'ils font, on a déjà eu à collaborer ensemble, nous invitons les boire les lunchs. Ok. Là, moi, mon événement, que Amnesty. Euh, bah, euh, on, on, va, on va lancer un message sur scène sur la protection de l'environnement, aussi sur l'employabilité des jeunes. Euh, bon l'événement qui est ouvert au grand public c'est le 24 décembre mais le 29 décembre on a déjà fait une sélection de jeunes ils veulent se lancer dans le domaine culturel Nous avons euh, maison de la culture de euh, centre culturel Blaise Senghor conservatoire am na ñu ci sélectionner ñoo xamantene ne dañ leen invité le 29 pour man ak sama staff ak ñi nga xamantene on avait à collaborer écosystème bi yëpp ñu waxtaan ak ñoom ci suñu parcours partager leen fan lañu jaar ba yegg si fii parce que y a plein de jeunes yoo xamantene bëgg nañ nekk waykat bëgg nañ nekk technicien wala am nañ sax talent buy nelaw ci ñoom ci régie wala ci réalisation wala mais xamuñu ko parce que école du la du la du la pousser nga nga dem ci monde culturel bi donc c'est à nous de leur montrer que musique mun nga ci dund mun nga ñun ñëpp Elzo ngeen au devant de la scène mais derrière Elzo am un manager un ingénieur du son un beatmaker un community manager etc. etc. donc l'homme, moo l'homme moo moo préservation de l'environnement mais aussi employabilité des jeunes dans le domaine culturel. ok et au sortir de l'événement euh, lan mooy nekk say attente Euh, ba j'ai bëgg naa bëgg nañ événement bi nekk lu rëy ba nga xamante ne euh, day day jaay destination Sénégal instant bi nii événement la boo xam ne day indi ay ay fano Elzo ak fanu culture yu jógee ba Thiès jogé ba Saint-Louis jogé ba Ziguinchor jël ñew et le but c'est que ay Guinéens ay Maliens ay Français ay Américains affaire bi nek ben rendez-vous bo xamante day dundal culture parce que day dundal tourisme parce que c'est là où le tourisme et, la culture peuvent être un levier de croissance économique Le bon peut-être c'est à long terme en tout cas l'homme vision bi objectif et vendre la destination Sénégal. Ah oui à travers ma musique.

on a je pourrais pas dire l'organisation, organisation mais je sais que minimum minimum ëpp 60 millions genre je pense un hein, minimum euh, et euh, on a déjà écrit par contre je pense que non amaguñu amaguñu réponse concrète ah, on est les partenaires moi heureusement je suis avec Samsung je suis ambassadeur de Samsung Il y a la Samsung euh, Il y a euh, Samsung bi il Il y a je sais pas si un concurrent la dans ou pas les Estivignons yi accompagnés <laughs> Avec euh, Trace. Trace on a on a on a d'autres partenaires médias

nit ñi ñu ngi koy laajte di lu diko ko c'est pas loo xamante ne sax ñun ñoo koy forcer nit quoi boo ko defal nit ñi ñoo la koy laaj donc c'est un vrai rendez-vous culturel qui est qui est devenu incontestable donc je pense que boo ci mënee def dara nga def ci dara gars yi ci parce que war nañ ci jàpp moom. ok est-ce que yomb na tey euh, Sénégal def événement bu toll nii. Euh, est-ce qu'il y a des difficultés aussi rencontrées au cours de l'organisation Non, mais nous savons que ñu xam nañ ne yombul parce que da ngay da ngay comme li ñu doon wax léegi rek quoi ñun ñëpp on est des des des indépendants on est des artistes autonomes ñu ñooy demal suñu bopp yaay def sa ay concert wala am sa ay contrat publicitaire jëlaat xaalis boobu di ko injecté ci ci ay événements donc euh, c'est sûr que c'est pas facile mais duñ toog rek naanu yombul duñu def quoi dañuy dañuy jéem a def buñ toogoon noonu depuis 2015 bàyyi nañ bu yàgg mais xaddi ñu c'est un instant bi affaire bi magna donc euh, affaire bi yomb tamit quoi ñu on s'attend pas à ce que mu yomb donc du baña du jafé rek ñun ñu aussi quoi. hip hop bi mi ngi dox. mi ngi dox bu baax. yaa donc yaa ngi ci gis parce que tamit euh, yombul euh, hip hop awards nga gagné 3 prix. là moi c'est secret. ay liggéey rek <laughs> liggéey concentré ci l'essentiel. bañ a bañ a public bi dila la déconcentré waaw bañ a bàyyi euh, avis yu nit ñi wala euh, opinion yu nit ñi di la déconcentré. di la ngay classe gars yi. Mm. waaw déconcentré ngay ngay jël sa énergie boo xam ne mun nga ko utiliser xalaat ci affaire yu nice Euh, nga nekk waa di ko utiliser ci ci benn affaire yoo xamante ne c'est pas forcément positif mm-hmm. donc est-ce que mën nga ñëw ci single bi nga xamante ne euh, nee nga dafay nekk di lancer li nga xam ne mooy événement bi charismatique. waaw non a am na une de freestyle bu bu mu tudd am na deux yu génn troisième bi dina semaine prochaine. yan daam nga si développé. Euh, c'est purement hip hop c'est purement hip hop freestyle. pour gëna tangal affaire yi gaay won gaay nek ñi ngi liggéey nalawuñu et que bu ñëwé ak euh, <laughs> publik non public la je parle du public won public si bu ñu ñëwé dinañ euh, spectacle bu graw parce ma ngi staff chaque jour hmm. musicalement scéniquement pour que un spectacle bu gën pas dóob ko passé. Euh, jeune génération hip hop une relation a Une relation est nice euh, je m'entends bien avec tout le monde ça a une tasante voilà on se on se on se félicite on se motive relation est nice. ok charismatique pourquoi. Charismatique parce que ça parle d'une euh, du parcours d'une d'une charismatique. Non non, ça parle ça parle pas de moi du <laughs> tout. Ça parle d'une d'une femme quoi. Ça parle ah. des femmes en général, les femmes comme toi yo xamante ne ngi liggéey xaro len kenn di di di lu xaro len gor xaro len yoy quoi. Mhm. donc c'est l'histoire d'une femme bo xamante bu mu nekkee xalé day jàng école. këram demeewul noonu niveau moyen et tout mais mu gëm ko continuer jàng dem ba am ñu koy bun xatal ci liggéeyam ba mu dem ba nekk boosu entreprise bu muy liggéeyee mm. waaw loolu tamit dina génn léegi ngeen gis ko j'ai j'ai tenu à faire ça parce que les les les femmes ont, ont besoin d'être euh, représentées euh, waaw man je suis avec les femmes quoi. <laughs> <laughs> d'accord comme que vous êtes avec les femmes et récemment am na benn euh, événement bu fi xewoon Miss Sénégal euh, kii ba tey affaire mi ngi nekk euh, ci justice Yo, en tant que porteur de voix nan nga kiiwee nan nga ko dundee événement boobu noonu ak lan moo si nekk sa xalaat ba jigéen ñi dañ leen war a dañ leen war a jox seen euh, seen respect et et et, et gars yi tamit soxla nañu beaucoup de sensibilisation sur euh, les les les les questions de viol et de violence sexuelle parce que da ngay gis ne ba léegi day am ay amalgame da ngay gis benn jigéen dara dal ko au lieu nga xool waa ji euh, est-ce que am na ay est-ce que xamee nañ ko loolu ba pare et tout. mais danga nga lan fi jigéen ki lan la fa doon def wala lan la solaan wala yooyu tu vois jigéen am na droit sol mini am na droit sol lu ko neex dem fu ko neex na na na na góor yi téye seen bopp quoi ça veut pas dire wul euh, li jigéen bi sol wala heure bu mu nekk ci benn endroit munul justifier koo xamante ne góor boo xamante ne daf ko attaqué def ko loo xamante ne la la fille elle est pas la femme elle consentante quoi mm-hmm. donc loolu laa gis ne daal war nañ ci gën éduquer wala sensibiliser waat góor ñi ñu xam ne que euh, même su su benn même su demul ba yegg ba ci euh, rapport wala yooyu viol am na quoi viol mooy daal nga imposer wala forcer nit def loo xamante ne bug ko def d'accordul. Mm-hmm. d'accord est-ce que tey euh, d'accord nga toog fii tekk fii mën na nekk. bu baax a baax bu baax a baax a baax ci benn ci toog plateau gi rek maa ngi ko ci wax naan toog fi liggéey tekki fii dootuñ nangu dee ci gaal euh, loolu rek a fi am c'est c'est c'est trop dommage de voir kuy kuy liggéey dajale ba am un million deux wala trois millions alors mooy que yëfam mi ngi dox quoi mm. mu jël ko dugg ci ay gaal wala fay di ay visa affaire yooyu pour dem à l'étranger c'est parce que mentalement on nous a vendu trop de rêves comme vrai que parfois, tu que parfois aussi pression familiale. je pense que ouais lors de petits jouer mais c'est très dommage mais je mais gis ne que commencé à changer Il a commencé à à que amatuñu lu ñuy l'Union Européenne en au contraire dañuy dem foofu càng foofu doo mënti ñëw ci la ta famille alors que fii euh, yàllaa ngi fépp quoi mhm, foo waaw boo góorgóorloo amul fenn ci àdduna bi fooy dem di xaalis wala di ko witt ci garab mhm. liggéey rek fi am xam nga ñoom ñoom exemple yi bëri nañ quoi de gens qui sont partis de zéro tey jii nii am ay tabax ay ngandi affaire donc ça montre ko gëmee dëgg mën nga ci y a d'accord lan mooy sa projet. Ah, festival bi mooy projet principal bi buñ ci jógee deux mille vingt deux dina ay dina am affaire yu bees c'est sûr que. xaar ay concerts euh, des tournées. partout au Sénégal corona bi mooy sonaloon rek mais instant bi kay na fi ak jàmm. waaw bi mu tudd bi nga leen fi jógee. Eh, non man bi ma dégg loolee sax bi ñuy wax ci suuf nii di ko lii déggoo ko yow. ndax xaar de dina soixante quinze yooyu mi ñëw. incha allah <laughs> mais ñu benn freestyle ñu tëj. ñu tëj ko ok. yow ma njëkk dégg sama baat rajo du woon dara ci man xaw ma woon ngi ci révolution ni Sarafina. bu nekkee taxaw na léegi mu ne dara ci rab te ko ni booy bëgg dajale caagi di naawal kenn moomul kenn kenn pëlewul kenn dara ci leen bu kenn xeeb kenn ngëngëm rek waar fi ne xam naa gaal seen i musul dugg karapit sax jaaxle nga xaat jàppal ne maa ngi doog a tàmbali nag 24 décembre Esplanade Grand Théâtre jàmm naa ngi ne merci merci